bu gaali waaye yam ci digg géew bi lan Caatu Youssou nuyu naa la. maa ngi fay Ousseyn. bi mooy sama quatrième combat. daa mel ni da a daan de teel a yeewu supporter. waaw tey moom sama combat bi waaw teeluma daan sax combat bi xaw na métti quoi dama xeex. bi quoi xeex bi. xeex bi ko métti quoi. arbitre moo moo nangu moo moo mooy loo woon ci. waaw. nga trois victoires benn rek ma bëre ñoom. ku si mel ne nu mu tuddati waaye raxu na bi. réparé na ñoo ñu bëre. ñu ngi kaa dugg ci réparé. réparé ku ñëw baax ku ñëw ba ku si ñëw si ñoom baax na. li nga moo tax nga bëgg a jëflante ak ñoom. non dama yor noonu de ay lamb lañ de moo yaatu quoi ku dem mën a am moromam. boo gis ngeen caas réseau noonu. liggéeyal rek ba ci kanam yàlla baax. waaw yàlla baax na waaw. suñu lamb boole rek pare nañ pour bëre ak moom. ñaxas dëgg bu paree pare nañ. ñaxas dëgg. ñaxas dëgg diis na de. nga ñëw fayal doomu ndeyam doomu ndeyam laa ñu sànq. na ko ñëw fayal. kon baax na Zarko noppi na Mbaye Gouye Gui nga defa téere yi Zarko noppi na bu yàgg waaw waaye guy gee ngay am na butéel ba mu yor Zarko am na butéel ba mu Soko am te butéel moom sottee ko guy gi pare na Mbaye Gouy Gui ngay eti am na sungu fa yor moo ngay raayo da koo bëgg a wër am na ñetti nen yu mu yor ko Zarko pare na Mbaye Gouy Gui pare na Mbaye Gouy Gui ñoo ngay waxante ñoom ñaar kenn xamul ñoom ñaar la ñuy wax lu mu doon ñoo ngay pil ku ci nekk fa taxawee ñoom ñaar ñëpp fii ñu taxawee la nu bëgg a taxawee ñu xool kan mooy gañeegum kuy dem wala kan mooy taxaw. Mbaye Gouy Gui gañe dañoo tiraar ñoom ñaar toj na nen Zarko toj na nen Zarko Mbaye Gouy Gui na mu ñoom ñaar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 Zarko Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy Gui tàllal na ko loxo ba Mbaye Gouy Gui à gauche Zarko à droite ñoo ngay lewaatoo waaye lewaatoo ba sori na Zarko ngi taxaw di ko xool daa am lu muy ñaan wala boog ay feemam lay def te ji làmb lewaatoo bi sori na combat bi mënut a yomb. Mbaye Gouye Gui bi waat na leen. Zarko Mbaye Gouy Gui Zarko Mbaye Gouy Gui xoolal Zarko nee na ko maa ngi lay gis kaay Zarko <laughs> nee ko maa ngi lay gis kaay Mbaye Gouy Gui da koo tàllal loxo Mbaye Gouy Gui da koo loxo Zarko ne ko maa ngi lay gis. boo doon loo ba ñëw. wàcc nañu ñoom ñaar. raas ndaama loolu fi andi. nu nuy def. Zarko mbay guy gi. jege yantoo nanu léegi. dañuy xeex. wax nañu ba. combat yu coow li bëri woon xas-xas loo bi bëri woon na. tuñ. kii naan ko war kii naan ko da ngay dof waaye mbokk yi lépp lépp lépp lépp leer ci diggante Mbaye Gouy Gui ak ki nga xamante ni mooy Zarko kii nga nga waa Grand Yoff ànd ak waa Grand Yoff Zarko ànd ak waa Bawol abit bàyyi leen bàyyi leen ñu bëre bàyyi leen ñu bëre Zarko Mbaye Gouy Gui lamb fa round d'observation de la ba Zarko Mbaye Gouy Gui faaw ñu xeex xeex mënu cee ñàkk Zarko Zarko dafa bëgg a dem wala lu mu bëgg a def Zarko Mbaye Gouy Gui ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar Zarko day wàcce ka demi flexion wala lan lay def Mbaye Gouy Gui wàcc na kenn dooragul kenn songagul li waa doo bi yàgg xeex Zarko Mbaye Gouy Gui eh Zarko door na Mbaye Gouy Gui kuubu Zarko doon na Mbaye Gouy Gui Zarko Zarko Mbaye Gouy Gui Zarko doon na Mbaye Gouy Gui kuubu dal Mbaye Gouy Gui Zarko arbitre bi Zarko Mbaye Gouy Gui Zarko Mbaye Gouy ngay demee wet Zarko day xeex ak moom door na ko ku Zarko door na Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy Gui daa mel ni jàppante bi la gën a bëgg Zarko Zarko ngay xeex moom door na léegi Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy Gui daa jël coup Mbaye Gouy Gui daa jël coup dafa kaawu kaay dindil Mbaye Gouy Gui dafa jël